suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax ni su ko xaar yi doon jar doonaa ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. waaw waa téléspectateur ñami TV waaw ñu ngi leen di bëgg waat bu baax baax baax waaw ba léegi ñu ngi ñëwaat si témoignage rek si daara 15e euh, bu am fi université Cheikh abdou Diop euh, tay nak bon ñu ngi waxtaan kenn si euh, kër gi di ku spécial si kër gi sax muy Baye Daouda Xiin ku nekk xamé ne ko si kër Cheikh Moussa Cissé ñëpp bam daaru kon Baye Daouda ñu ngi lay échiaré di la bëggé di baye nga nuyu waa téléspectateur ñami TV di la tan bla ngi seetaan assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi santat yalla bu baaxa baax di wax jeufa Cheikh Moussa jeufa Cheikh Moussa jeufa Cheikh Moussa sey ndam borom daaru ah ñu ngi nuyu wa université ah, mbokk talibé yi nga xam manam ño nek fi ci bërb bi fi yëngu ci walu jang manam bu ñu invite ñu tay ci bës bi ñu ngi di nuyu ci kaw ba ci suuf di len ñaanal jamm te di sakku ci yeen di wax ni seen mbokkum talibé la bay daawda xin ak Saay Kun di yëngu ci walu zikru la di am mbégte ak tey ci teew bi ñu teew ci bés bi ah wax dëgg fa la mbégte la ci ñun bi ñu xëyee ñu ne dañoo war a dekkalaat daayira bi quinzaine bi ñu tuddee ko waa orchestre benn ga wax dëgg fa la loolu moom mbégte la ci ñun. parce que ñun moom sunu objectif ci biir kër gi nekkul lenn lu dul waa kër Cheikh Moussa ñëpp nekk benn loolu moom mooy sunu objectif mooy objectif bu benn galañ te gis nañ ni maanaam góor yaal yi nga xam maanaam ñoo féetewoo ci diwaan bi. di université Cheikh Anta Diop maanaam loolu mooy seen objectif ba tax na tey ji buñ ñu wooyee ci bés boobu dañ koy def sant bi yàlla ñëw dooleel leen xam ne lépp ci liggéeyu Cheikh mossa Cissé Ndiame borom daaru ñu ngi ci am mbégte bu baax a baax a baax a baax sa ah, Baye Daouda ñu ngi lay béggee bu a baax baax comme ni ma ko waxee sànq yow maanaam euh, kilifa nga si kër gi te itam ku nga si euh, kër gi euh, Baye Daouda gisee maanaam maanaam mission Cheikh Moussa si si jamono Euh, nag ndax lu ndax nekk na mission boo xam ne maanaam lu yee jamono loo lu yee jamono la wala fan la yóbbu jamono ba xam ni maanaam euh, lu si bëri dina changé. waaw jërëjëf yaaram bi euh, loolu question boobu moom dañuy am mbégte pour tontu ci parce que tey jii Cheikh Moussa dafa fekk jamono foo xamante ni fii maanaam dafa lëndëmoon maanaam tey jii moom comme ni nga ko waxee nee na sëñ Touba dafa ñëw mu ne damaa yeesal islam damaa yeesal si islaam Cheikh Moussa bi mu ñëwee dafa wax ni maanaam dama yeesal yoonu murit ba mel ni man maa ko sos yeesal gi mu yeesal yoonu murit maanaam ci xam-xam la parce que xam-xam bi nga am maanaam moom la sëñ Touba doon def ci ay mag ak saykun mag ña ko toppoon moom la sëñ Cheikh Moussa tey ji moom la def ci ay ndaw ba waral daayira bi samp kon di di di ñu ngi jaaramal Cheikh Moussa bu baax a baax a baax parce que tey ji ñun ay ndaw lañu amaana mënoon nañoo fekk ci yeneen ñu dem ay soirée parce que fekkoon nañ ci ñu ngi ko doon jëfandikoo mais bi leer gi biñ ci jotee wax dëgg fa la maanaam permettre tuñu maanaam ñu dem ci bërëb yooyu kon sunu dox sunu lépp maanaam cant la dem daayra dem cant xaka saakoon moo tax wax dëgg saa la namoon nañu lii namoon nañ ko bu wér a wér parce que saafonte bi ñuy saafonte góor yàlla yi dafa am lu muy def ci ñoon daal moo tax bu ñu xëyee teew fi tey bés bi maanaam dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla sunu borom lépp li ngeen ci nam yàlla sunu borom dafa leen ci si kaw seen njott ci barke Cheikh Moussa Sy Ndiame borom daara. jërëjëf euh, sang bi gis nañu tamit maanaam yow euh, euh, si kër kat nga te yaa ngi dem fu nekk si Sénégal si xew-xew Cheikh Moussa yi di di participer di wane maanaam sa bëgg Cheikh Moussa waaye di wane maanaam bëgg xam-xam bi nga bëgg xam waaye bëgg yàlla gi nga bëgg yàlla maanaam lan moo la poussé ba nga choisir maanaam sikar maanaam di jàll si wàllu musique. waaw dëgg la maanaam. sikar si ñu si ñu def nii di ci dem fone wax dëgg si yàlla taarix la boo xamante ni maanaam ah, buñ ko naroon ta taawil maanaam dañuy dañ fii la ñuy fanaan wax dëgg fa yàlla dafa doon loo xamante ni maanaam mosuñoo dund sikar mais nag ki mu saa defar ci boppam mooy sunu la di maam Cheikh Oumar Ndiour ñu ngi koy waaye généralu mu Moussa si njàm borom daaru ñu ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér da ko njabootu saayaram ak njabootu baatinam wax dëgg fa la li ñu xam ci sikar tey li ñu mën ci sikar tey moom moo ñu ko jàngal ci moom lañ ko xamee wax dëgg faal te ah dañoo jaayanteeg moom nag wax dëgg faal la saafoonteeg moom comme ni Seera Fall saafoonte woon ak sëñ ci yàlla laa bëgg aw ma soxla ci doomu aadama ci ci jëmmi doomu aadama lu mel noonu la ñu saafoonteeg moom ñu ne dañoo bëgg a mën sikar mënuñu boo bëggee mën sikar ñëwal daara ja Hagasa kon ca la daara ja sancu tey jii maanaam euh, Hagasa buñ daan dem daayra wax dëgg faal dañ daan ñibbi ay deux heures du bu ñu ñëwee damay sol samay tenue ma dem wàcc ci tool ya nekk di roosi foofu ba tey jii ñu jaante ko sang ba yàlla defal ñu ci taw tawfeex ba ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax da di loo xam maanaam dañ ko bëgg maanaam bu ñu toogee semaine demuñu sax cant wala daayra sax dañuy am problème wax dëgg fa parce que dafa dem ba bokk ci ñun ñu def ko sant yàlla nag wax dëgg fa yàlla moom mooy li ñuy bégal daal wax dégg saa kon ñu sant yàlla baax macha allah maanaam jamono confinement bi xam ne comme lu xew si bi maanaam euh, ñi tënk lépp jàkka yu tëj euh, daara yu tëj cant yu tëj euh, gàmm yu tëj ziyaare yu tëj boobu naka ngeen loon dund yow en tant que sikarkat loolu naka la la defoon waaw dëgg la loolu moom ne doon na loo xam ne maanaam parce que doomu aadama lépp lu mu miin rek bu bu toogee benn diir defu ko rek maanaam day am effet bi mu def ci moom parce que xamewuñu lu dul sikkar dem daayira dem cant moom la ñoo xamee góor yàlla yu bëri moom la ñu xamee bu ñu demee ba lu mel ni ñu ni coronavirus ñëw na ñu ne amatul maanaam événement religieux yëpp baar nañ ko maanaam bu boobaa ah ñu ngi doon toog suñu suñu bërëk ko nag di def suñuy bagage yoo xam maanaam denc nañ ko fu mu ne nii wax dëgg fa la denc nañ ko fu mu ne nii maanaam ñu ngi doon waajal sax def benn projet boo xamante ni maanaam ci siyaaru daaru bi wallaahi liggéeyoon nañ ko ba tegoo ko da côté mais nag siyaaru daaru bi comme que jotul am ren ah te projet boobu moom mënta génn lu dul siyaaru daaru parce que da di projet boo am maanaam dañ koo jagleel Cheikh Moussa Sy Ndiame borom daaru moo tax siyaaru daaru rek la mën a génn ba tax na dañ koy denc rek ba xam naa ba diwee nag jàmm mais nag terewut maanaam ñu ngi doon def ay répétition wax dëgg fa lu mel ni màggal gi passé defoon nañ benn single jagleel ko maam Serafal waaw yoo ak yu mel noonu amoon nañu ay invitation ci ay rajo ak ay tele waaw kon loolu moom ah wax dëgg si yàlla am na effet bi mu defoon ci ñun daal toog bi ñu toog dematuñ daari dematuñ cant mais comme que yàlla suñu borom def na taw fa ba mbiri ubbi waat na sant nañ baax baax yàlla na ko fi yemalee ba lépp loo xam maanaam ñu ngi ko doon def dem cant dem daayri yàlla suñu borom def ci taw fe ba ñu mu mën a yaatu daal incha allah rabbi. ak sa ah, sang bi xam naa balaa ñuy dem gis nañ ne maanaam sa sa euh, say say say zikr la n'est-ce sa orchestre sa su nek sen bac ak sen jogu la am Cheikh Moussa ngeen di di bàkk am tiefel gogu di di bac Cheikh Moussa waaw damay faral di wax ni ah Cheikh Moussa mom sa bu ma koy tuddu ci kar sax dafa am lu muy def ci man parce que dañuy wax ni kenn ku ne ki ngay wax ki ngay ki ngay tag manam ni mu la def motax mais Cheikh Moussa mom, wax deug fa yalla mom ah limay faral di wax ah, sanga bi nga manam ci mom lañu jébalu wax deug si yalla yemalewuñu ci bopam dafa ñoo joxoñ Cheikh Moussa ba mu jeex takk moo tax tey jii maanaam bu ñuy sikkar di tudd Cheikh Moussa maanam dafay doon lu rëy ci ñun suñu xol day day day tooy dañuy sikkar sax bay jooy jooyo xol barki borom daaru dañuy sikkar bay jooy jooyo xol dinaa ci dolle gis nga mooy Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall moom tamit noonu la may def damay faral di wax ne ñaari jëmm yooyu waaw maanaam ni li ñu def ci man maanaam fi ñu tollu ci man dafa rëy daal waaw dafa rëy daal waaw dëgg saa te loolu yëpp maanaam yar gi ñu yar ci yoonu Baye Fall moo ko waral te sunu sang moo moo ko def ci ñun daal waa sa euh, sang bi euh, lan lan ngay ñaax tamit euh, ndaw ñu nekk fii université bokk ci bi yor xam bi di ko dund maanaam yow en tant kilifa seen mag waaye seen sang si si kër gi yan ñaax nga leen jox waaw dëgg la maanaam dañu ne kala jiitu ci néeg moo lay wax ne ngay toogee xam-xam bi ñu Cheikh Moussa jox wax deug ci yalla yar ak teggeen la andal kep ko xam manam amé nga ko nekkatul ci yow am du teggeen ci yow ngay dox yenni ba ngay waxe yenni sa bo cadeau jam ñi déglu la ñu ne est sa bo jëfé jëf ji da wara a cadeau ga kon ma ngi maa ngi sam bop di soñu kulukum ko am ma ngi ci bërepp bi manam nga dox doxeen boobu soko ko rek ak numu mëna démé kenn dula jam donte maanaam euh, xam-xam bi waxtaanee nga ko maanaam bu buñ leen nangulul danañoo xam ne nit ku baax a ngi ni loolu daal lay dénk sama bopp di ko ñi nga xam maanaam ñu nekk ci bërëb bi. sang bi maanaam fu jamono toll nii euh, ku ne xam ne na Cheikh Moussa Sy moom Daara moom mooy saafara jamono yow euh, gëm nga ne bis dina ñëw. Euh, Cheikh Moussa maanaam am taalibe boo xam ne maanaam Cheikh Moussa yor réew mu si loxoom muy maanaam am koo xam ne nekk na si te de nekk na fi chef de l'état di diriger Sénégal. dëgg la loolu am nañ ci yekkin bu wér-wér parce que tey jii réew mi góor yàlla bu ko yoree dana am ci yeneen doxalin yoo xam ne maanaam dana ko dox loolu lii barki borom daaru parce que dafa am loo xamante ni maanaam dafa jot dama koy faral di wax bu ñu yem ci ay daara ki cant ak di waxtaan ci yàlla dafa dañoo war a xëy ba xëy góor yàlla toog ci pale ba billaay wala jiiti réew mi bu wa ngay xam dëggu bi nga xam maanaam moo ci rew mi naka la demé kon ñu ngi ñaan yalla suñu borom yalla ko borom def ci barke sey Moussa sey jambal yar bëgg xam abonné wu ci youtube bu ñambi tv bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën abonné am vidéo yi ñu